làmb waaye tey boo gisee parcelle mbooloo lii ñu indi nga xam ne am na lu leen yitteel ci làmb am na lu ñu bëgg a jël ci làmb am na cër boo xamante ni soxla nañ ko ci làmb kii mooy Moussa Dioum sama xel dem na ci tàkkusaan yu bari yoo xamante ni bëre na ko ci làmb ndeysaan ku ne bëre na ak moom moom Moussa Dioum damay dugg nuyu ko Moussa nuyu naa la. jili maa lay fay. waaw yaayam sant yàlla bu baax. ngeen waaj indi seen frère indi seen doomu ndey indi kon koo xamante ni parcelle mbooloo dañ koo yaakaar muy ëbbale nan ngeen ko waaje waaw da nga naan ku làmb yaakaar du parcelle kese parce que tey ñi fi ñëw ñu ci ëpp mbokk séeréer la ak ñi mu doon dajal lit simple gis nga ko léegi ànd naak euh, ordinateur ñu ànd baaku moom bés mi dafa war a xam tey lim ko jaral dafa war a xam ne dafa bokk ci làmb dafa war a am loo xam ne tey da ko war a jël rek dem ñibbi lépp lu ñu waroon ak moom def nañ ko entraînement yi métti na lépp nekk parce que yaa ngi doon suivre ci net beeg yëpp li ci des nag. moom moo ko war a mottali du dëgg mais nag ñu la wax rek nga ñëw rek ne damay jële fii kii mag la war a déedéet na mel ni kuy bëreeg Yékini ñun noonu lañ ko yebetee boo gisee ñu ñëw ñun ñëpp ak sérénité nga xam ne combat bi bëgg nañ ko parcelle mbooloo bëgg na ko ay mbokkam bëgg nañ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat may ko ndam lu sedd guy. ñëpp nee nañ Pape Yékini dafa foor ci wàllum xeex est-ce que moom entraîné ngeen ko ci wàllu xeex wala jàpp bëre moom ngeen ko conseil waaw Pape Yékini ñëpp xam nañ ne dafa fort ci wàllum xeex mais dafa mën a bëre sax Pape Yékini dafa mën a bëre waaw parce que ñi mu fi bëreel boo xoolee ñi mu bëreel action yi mu defanteeg ñoom loolu ku mënul bëre doo ko def ñun gëmuñu loolu dañoo gëm ne ndaanaan Yékini la ñuy bëre sil tey dañoo waaj li ñu war a waaj yëpp def li ñu war a def yëpp tàllal loxo yàlla suñu borom di ko ñaan mu may ñu ndam. bi mooy ñaata sotti parcelle mbooloo. bon parce que affaire bi dafa tëjoon ñu ngi doog a commencé waat tey. mooy suñu première sortie yàlla nañu yàlla lafal cat may ñu ndam waaw di ña tàllal loxo waa parcelle ba 26 waa Joof Yoor ñëpp ñu leen di tàllal loxo di ñaan daal yàlla nañu yàlla suñ borom may ndam lu leer nañ waaw loolu laa la ñuy ñaan.